salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum Sénégal réew mi tey dama bëgg ngeen dégloo ma xel te bañ maa dégloo xol tey dama jàng ci àdduna lu doy waar tey dama jànge ci àdduna benn xeetu jàngat boo xam ni dina may arrivé sax may jàng ci àdduna waaye tey da cee tey dama demoon seeti sama xarit Lat Diop tey dama demoon seeti ko fi mu nekk yàlla na ko fa yàlla jëlee gaaw barke Seydina Muhammad ma dem fekk fa sëñ Bada sëñ Bada mi nga xam ni tey moo nekkoon ci TikTok bi di wax te sëñ Bada jour bi ñu jàppee Lat Diop amaana moom moo doon def moo njëkk a def vidéo di saaga Lat Diop ba saaga waale ma ci man ne sëñ ne Lat dañ ko war a tëj ba damm caabi ji sànni ko géej vidéo yaa ngi fi di ko jiiñ waxu wax ju ne di ko wax lu ne nan dañ ko war a tëj di ko yéene kaso di yéene ñu jàpp ko léegi sëñ Bada moomu laa dem tey di seeti Lat Diop fekk ko fa te li gën a garaaw li gën a garaaw moom ak Lat Diop ñoo bokk benn aleya bu ñu nekk dañuy rombante sëriñ Bada tey maanaam bi mu ko gisee dama delloowaat sama xel ci yàlla xam ne nit kenn du ko yéene lu ñaaw nit kenn du ko yéene lu bon te nit kenn du ko yéene safan ndax yàlla gëmmul nelawul te lu yéene doomu aadama fii ba àddina di tukki dina la teg lu ko raw te amaana man mii nga xam ni tey doon na ma saagawaale sax di ma ci boole nan ma lat jóob ay ñoom buuseeg yooyu di saaga tey amaana am na yu bari yoo xam ni man mii maa ko ko seereel ndax man mii maa ko jënd bàyyil ko ko fa pour ñu jox ko ko ndax loolu la ma ni moom loolu la soxla te amaana lat jóob mi nga xam ni moom laa doon seeti seeti yu ma woon sëñ de Lat Diop mi ma doon seeti sax loolu nga xam ni lijjantil naa ko sëñ Bada jox ko ko Lat Diop soxlawul loolu te te te ki doon saaga tey di ko boolee Lat Diop kooku moo ñëw dimbali ko jox ko ko bàyyil ko ko fa kon àdduna jar na di bàyyi xel bu baax a baax a baax di xool lu ñuy wax di xool li ñu yéene doomu aadama di xool nu ñuy jëfe parce que àdduna amul solo sëñ Bada nag yàlla na fa yàlla génn jàmm ci barke Seydina Muhammad ak mbooloo mu jullit bu fa nekk